waaw man maa ngi tudd El Hadj Saer nekk euh, fac droit euh, def nekk niveau ma 2 bon mën naa ne def naa sama soutenance ba pare et en même temps nekk membre de la liste renaissance amicale fac droit. waaw coow bi nga xamante ne dégg nañ ko démb fii ci université ci diggante waa Kekendo ak waa Ndefleng lan nga ñu ci mën a wax. waaw bon coow li moom à part ñi nga xamante nii dañoo nekk ci ñaari camp yëpp. nekk loo xamante mën naa ne ñi ngi ñi ngi fa nekkoon nekk des témoins oculaires keneen ku ci nekk danga naan dégg na dégg naa dégg naa parce que man coole bi muy commencé sama biir chambre laa nekkoon ci laa dégg nii ñu ne ma waa Keke Ndoog waan def léegi ñi ngi laale comme que ñaan ñëpp aussi dañ nga ci xam ay nit on obligé à ce tey ñu jéem a wàcc man ak suñu président amical fac droit Abdoulaye Cissé ak yeneen yeneen suñu yeneen gars yi ñu wàcc pour jéem a xool exact na nu mu demee ñu wàccee nag franchement. am nañ lu ñu métti parce que tey dañoo gis deux frères yoo xamante nii ñu ngi doon rayante parce que tey ku wax séeréer wax joolaa xam nga que dafa am benn relation boo xamante ni dafa yàgg am te lu l'histoire l'a démontré parce que man sax maam dafa ma doon faral di wax ne ma séeréer lu mu def joolaa da koy gis joolaa aussi lu mu def séeréer da koy gis parce que moom jot na servir Casamance. loolu nag moo tax bi ma gis bi ñu gisee lii démb franchement ñu métti ko ah parce que am na ci ay blessés grave d'après li ñu wax tey aussi gis tey ñoo xamante ni mën naa ni ñoo bokk benn milieu bokk benn kër mën naa ni bokk benn néeg di rayante no loolu moom doy na waar daal te liñ gis tamit da am na benn sentiment buñ am mooy comme quoi que maanaam jéggi canal 4 à 4 heures du matin instant bii nii moop sécurité nekk biir université parce que buñ gisee université coo am ñu génne ay jaas yi def nii alors que ni que sécurité cour dañoo toogoon fii carrément ñu ne dañuy désarmer université loolu la ñu waxoon. ba génne ko filmer di ngand ngandolu di glorifié wu démb gis mais buñ ko mën naa buñ ko ci ay mais day fees pratiquement ñi fi taxoon buñ personnes mais les 80. vingt dañoo yoroon ay jaas fuñ fu jaas yi jugee soit gars yi bi ñuy ne dañuy désarmer am amul lañ alors que la loi doit être générale et impersonnelle yoon warul am kumba am ndey ak kumba amul ndey dañoo war a yemale ñëpp mais ñun liñ gis démb non dañoo jàpp ni gars yi désarmé wuñ wala boog bu dee dañoo désarmé non na xam ne benn jaasi leen jël des na mille yeneen jaasi biir université. waaw par rapport ak euh, problème bii fi am démb euh, buñ ko méngalee ak lii di franchise universitaire bi ñu gis ne démb ñii di takku deer yi ñoo def intervention mooy que ñoo ñëw ban xalaat nga am ci. mbiru franchise universitaire boobu ba xam yaakaaroo ne léegi war nañ mën permettre ñii di takk deer yi ñuy dugg fii ci biir université. waaw man de bokk naa ci ñu doon wax ne démb police daa dafa sax yéex a ñëw bu desoon ci man rek waxuma la police rek de GIGN sax day ñëwaal ak armée bi parce que xamul tax gis nga université bu ko gars yi jàppee jungle temple du savoir lañ wax bërëb boo xam ne fa la ñuy sàkkoo xam-xam muy bërëb bi gën a kawe ci niñ koy waxee. peut-être mu entre temps mais ba fi wax ak temple du savoir lañ ko tuddé kon des étudiants s'entretuent mën incompréhension xam peut autorité bi de responsabilité kon dañoo poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pourquoi mané autorité parce que directeur du avant muy ñëw amna nañ interview ci directeur du la du directeur localité te nag boo nee directeur du COUD université la wax université du Mané, celle c'est le Sénégal en miniature mais c'est l'Afrique en miniature mais y a une vingtaine ou bien pour voir une trentaine de nationalités yu fi quand kon da kenn ku ci nekk dafa war a prendre en compte tey seen ay réalité mais bu ñëwee mu recevoir benn groupe bàyyi ñeneen au détriment des autres mais discrimination la parce que tey ñenn koo léser rek mais day fippoo mm-hmm. kon tey moom bu bi mu ñëwee li mu waroon njëkk def traiter d'abord avec les amicales parce que tamit sommes ah, légalement et légitimement élus par les étudiants kon na traiter d'abord avec nous. parce que ñi sommes ci mouvement yu kenn dans ci mouvement, da ngaa ci amical kon pour man tey structure yi nga xamante ni ñoo war université ça doit être les amicales n'empêche le mouvement est là, mais nous nañ fi nekk xam tax mën nañ parce que nous sommes dans une localité, localité sommes dans ay réalité peut-être mën naa ne ñoo gën a pour solidarité bi gën a dox mën nañ def mouvement parce que le mouvement ndo ci contexte bobu la juddoo mo le mouvement def la mi xam tamit ñëw na ci même contexte la juddoo kon donc bu fekkee ñaari mouvement yu benn bu ci nekk ci même contexte nga judo kon ñom ñoo wara am même objectif moy kenn ku ci nekk tay nga défendre tay say intérêt frère té nak bu ñuy wax frère mais Sénégal Sénégal lay wax kon donc directeur du kudu bu mu faté ni directeur kudu la du directeur mbour man waxon nako parce que li ñuy gis ni non dafa commencé def les mêmes erreurs que ñenn ci ay directeur kudd yi fi jotoon jaar parce que xamul tax loolu bu fekkee ni dañoo gis ni sa loi localité ñoo fi fees dell mais yeneen localité dañ naan ah comme nii la koy defee mais ñun dañ koy saltal ñun yàgg nañ université xam nañ bu baax a baax lu mu bon ma def nañ fi sept kon xam nañ bu baax a baax li ñuy wax mais bu fekkee ni tey jii nii dafa ñëw moom mu jël ñi nga xamante ni ñoo dëkk mbuur yëpp dugal leen fi mais loolu day doy waar te loolu nag dañ koo gis ñu du lu ñuy waxantu nii de mais dañ koo gis maintenant nag man je me dis que est am na ay conseils wala est-ce que leen di déglu parce que jàpp naa ne bu leen doon déglu yu bëree bëri dana ko éviter wala boog ñoom defuñ seen liggéey maintenant nag damay sa jigi directeur di kuddu ma dem ci le président de la république directement ma ne ko directeur di kudd fekk ñu koy politiser problème yi day am xam nga lu tax am moom parti au pouvoir lay nekk ñi nga xam ne opposition lañ nekk mais dañ naan comme force bi politique la mais ñun tamit dañuy politique. Mm-hmm. le fait que ñuy politique nag ñoom mais dañ koy yàq gestion parce que ñu ngi wax naan université waruñ fee politique wala université dañ fee war a politique mais xam la lañ war a loolu lañ warul politiser poste directeur kuddu comme rectorat ni ñu koy ni nga xam ne directeur rectorat demee noonu la directeur du kuddu war a demee ñu war koo xamante ni day politique di politique ñu teg ko parce que bu ko fi tegee au lieu muy poser tey des actes académiques mais ay actes politiques lay poser parce que moom lu neex président rek lay def ñeneen ñi yoonam newu si alors que boo dee euh, soo jiitee kër da ngaa war a tëddee njaaxanaay tëddee njaaxanaay mooy nga ne ñii ñëpp samay doom lañ parce que man xam naa ci yenn ay président amical yenn PSS yoo xam ne non ils sont dignes et honnêtes am na ñoo xam c'est des anciens syndicalistes xam naa leen ils sont dignes et honnêtes mais directeur du COUD na waxtaan président amical li nga xamante ni ils sont honnêtes parce que am na fi ay président amical yoo xam ah. may wax xam naa ko maa ngi xamante nan am na ci président amicale yoo xam ne ak ay yenn peses non franchement buy autorité bi ñemee def yenn si ñoom lay jaar mais am na ci ñoo xam ne ñemewu leen te ci gestion bi passé lañ bokk man am na ñu ma ci xam kon na xoolaat bu baax a baax doxalinam xoolaat bu baax a baax entourage am bañ di déglu ñu naan ko yow la yow la yow la yow la te tamit damay profité ci occasion bii di lancer un message à mes frères Casace mais aussi à mes frères di leen xamal ni ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. tey jii nii ku wax la mouvement Kekendo automatiquement man dama ciy gis sama bopp parce que xamul tax liste bi may syndiqué amical fac droit le mouvement Kekendo dafa bokk ci ñi nga xam dañ koo yàgg dafa yàgg xeexal liste boobu d'ailleurs mën naa ne c'est des membres actifs le mouvement Ndefleng dafa am ñu ma ci xam ñoo xamante ni université lañ xamante mais on entretient de trop bonnes relations te tamit ma leen di wax ni que bu ñuy fàttali ni que la vie ne se limite pas après maintenant une vie boobu nag dañ ko war a demaraat defaraat fii parce que les meilleures relations se tissent à l'université d'après plusieurs penseurs li ñu wax te man aussi mën naa ne sama meilleur ami wala l'un de mes meilleurs amis université gi laa ko xamee mu nekk koo xamante tey jii ni ñeme naa kaa confier sama vie te tamit bu ñuy fàtt ni que yenn considération yi buñ ci ciy dugg rek non mën na de mën na déplacer xam nga lu tax li am démb dafa nekk ñaari ethnies yoo xam ne kenn du ci reculer muy les Joola mën sa les Casaçais et les ku xam xam ne da koy rey rek daw ku xam ne koy rek daw kon police mais nan lay demee mort des mënoon na fi am te gis nañ fi am na ay blessés grave ñu ko ñu y a des blessés graves maintenant ñooñu noonu tey bu ci suñu borom wisu loon mu sedd mais mën nañ fi joon jaare sa tëj université ah. te li am am dans l'avenir, éviter parce que rafetul ci image université rafetul ci fraternité bi mos la am entre sérère et Toul rafetul aussi ci étudiant en tant que tel parce que te dañoo dem ba étudiant sax dañ ko mujjé diaboliser soo étudiant ñu né da ngeen xamadi da ngeen violent alors que demeewul noonu étudiant violent wul étudiant xamadi wul étudiant référence la au contraire mais nag peut-être xëy na yenn incompréhension yi mooy waral yenn affaire yi mais daal lépp dama koy tënkaar rek indiwaat ko ci directeur du COUD encore une fois ak ci chef am le président de la république di leen wax ni poste directeur COUD nan ko xoolaat bu baax a baax nañ koy defee sinon yeneen problème mun naa am ndax gars yi ay acte politique rek la ñuy def politique politique politique politique alors que ñoom trahir nañ sax déjà politique au vrai sens du terme l'art de gérer la cité l'art de bien gérer la cité ça laay wax mais maintenant est-ce que ñoom ñu ngi koy def parce que l'art bien gérer la cité mais égalité équité la transparence voilà mais ñom loolu yeb gisuñ ko lu neex nguur gi nga def lu neex lo xamanteni ni mën naa faagaagal opposition nga def nañ xolaat bu baax baax doxalen bi dal waaw Mouhamed Diagne dañ la bëggoon laaj euh par rapport ak information bi ñu jot démb moy tension yi amoon fi lan mo ci sa xalaat. waaw loolu d'abord moo tax ñu euh di nuyu di leen euh, jox seen wàccuwaay aussi.

Euh, jàpp naa ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay euh, nous sommes tous des étudiants nous sommes tous pourquoi ñëw fi c'est parce que dañu fi pour jàng mais ñëwuñu pour xeex kon donc en grosso modo jàpp naa ni euh, la nga xamante ni moom la si gars yi di xaar wala boog nag gars yi di gisee amaan na wut nag moom à moins c'est kenn si ñoom ñu mën la en réalité lan mooy cause yi ak fu mu jógee et ce le plus important pour l'instant mooy que ni Kikendou ndef leng dinateur commun mooy Sénégal seen dinateur commun le région de Dakar kon donc je pense am yene yoo xamante ci quoi voilà faut mooy ci quoi. par rapport ak euh, li ñu waxoon ñu nek euh, dañu bëgg a désarmer université Cheikh anto Diop euh, yow ban gis-gis nga am ci lolu ak fan nga xalaat ne lañ ci toll. voilà très bien xam nga lolu dafa nek lu am solo quoi université fii c'est un temple du savoir c'est un temple du savoir temple du savoir boo ko moy fa dañ fay jàngi jang kay la.

ñu gën a ciblé ñu jël mais ren ba léegi mi lu fi dugal ñun xam nañ ba léegi alors je pense que loolu nonou liggéey bo xam du am solo la ndax directeur COUD bi euh, peut-être moom c'est il lui revient comme devoir de voir comment faire pour éradiquer tous ces problèmes là ndax tant que mi fi am coow du fi jub tant que mi fi am coow du fi jub kon donc je pense que liggéey bi war na yaat pour que yewal ci ay ñi baye ñe pour que ko yemal si ñee bàyyi ñii pour nous jëm dans

ñu si bëri koo ci woote est xam nga directeur daan la xam alors c'est un problème c'est un problème loo nekk si nga doomu jaam wala boog nga nekk papa doomu jaam te jusqu'à présent mënoo def loo xam ne nit ñi mën a seet si bët bu fekkee léegi par rapport ak euh, problème yi nga xamante ne mi ngi fi am mooy tension yooyu noonu nga xamante ne yaa ngi koy souligné ak franchise universitaire bi. moy le fait que policiers waruñu fi dugg ak yoyu et que problème bi am demb ñom ñoo dugg te waruñu fi dugg et que ñom ñoo gérer problème bi est-ce que da nga gis na batay waruñu fi dugg wala bok jot nañu bàyyi leen ñu di fi dugg wa bon jot nañu dugg jot waruñu dugg te je pense que xamani naa bokay fay doko fay ak diwlin da fay xol doko fay pour mu bañ fi ci mujj gi alors bu policier yi dugg ci biir université bi policiers étudiant jamais au plus grand jamais mënuñu dund fi

donc na mën a xoolaat baax a baax xam ni étudiants yi euh, bañu ñu jàmm waaye ak na ñuy lijjantee ñoom jàmm jooju jàpp daan nag avec sa universitaire man mën na amoon benn stabilité chaque fois. léegi ban message ngay lancé sa frère yi nga xamante ne ak waa Ndefleng pour jàmm mën a dellu si ci ci seen biir ak biir université. alors message bi message bi comme bi message bi message.

maa leen remercier Bar Bar, a avec a baax aussi seen présence c'était pas évident mais quand retenait retenez bien que nous sommes tous ensemble vous journalistes nous étudiants nous sommes ensemble alors ñiy nekkee fële ñoo nekk fii ñu ñëpp nous sommes ensemble C'est le Sénégal mooy ñor intérêt bi mooy ñor intérêt Cheikh Anta Diop mooy ñor wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala